yéeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ñaari soldat yi Sénégal yi réeroon l'observateur nee nañu kenn ko feeñ na ubbil yéenekaay bi unité d'enquête yeeg sapeur pompier yeeg marine nationale yi ci njiital brigade prévôtale ñoo nga ca wër ga ba léegi ci kaw loolee l'observateur nee nañu ci la waa marine nationale gisee ab néew ci géej gi amaguñu takk bu wér nag ci néew boobee ñu gis néew kan la ci ñaari soldat yi léer ñoo nga ci identifié ga maanaam leerlu ge libération nañu ci la amul benn sikki sàkk néew bi nga xam ne waa marine nationale gis nañu ko ci géej gi néew Fulbert Samb la benn moo ko gis ci géejub Cap ñu ko xoolee identifié identifié ko ci la ñu gis ne Fulbert Sambou la disparition volontaire gi ñu ci doon ruumandaat mu di ñoom ñaari soldaar yi fu ñu nekk ñoo fa bàyyi seen bopp libération mi ngi ñuy wax ne loolee moom ca njëlbéen nga ca la ko enquête ba dàq l'observateur jëlaat kàddu gi di wax ne muy Didier Badji di Fulbert Sambou seeni jegeñaale nee na ñoom it bëgguñoo dégg waxi ñaari soldaar yi dañoo làpp Fulbert Sambou soxnaam di oo waa l'observateur dem nañu seeti ko ca jibo mu dëkk wax na leen tiis ak jaaxle gi muy dund ba mu yëgee ne jëkkëram dafa réer ak léegi moom soxna si nee na leen sax jamono ji lekk mu jàll mënu ko xamal mbir yu yéeme ci réeruk Didier Badji ak Fulbert Sambou benn moo di ñoom ñaari soldaar yooyu réeruñu samedi àjjuma maanaam 15 ñaari famille danañu conférence de presse ngir wax ci mbiri seen ñaari doom yooyu démb rek ñi cosaanoo ca ñoo gis soldat yi fekk baax te ñu nekk fii ci Ndakaaru amal nañu ab réunion ci seen biir ngir waajal conférence de presse bi conférence de presse beneen bu xëy di riir ci yéenekaay yi moo di bi ministre Mame Mbaye gonte woon démb anki dinekaay nañu tuuma yi Ousmane Sonko teg ci ab deram ci coowal Prodac gi tuuma yooyee la doon fa xas ba xamle fa moom ministre Mame Mbaye ne porte na plainte Ousmane Sonko ca kanamu procureur de la République ndax li ko Ousmane Sonko mu ko yónnee woon ci jano bi mu séqoon ak taskatu xabaar yi démb fa la xam leen ne porte na plainte Ousmane Sonko ca kanamu procureur li mu bëgg moo di li ko Ousmane Sonko di tuumal mu génnee preuve yi li mu koy tuumal mu ne ndax ci jamono jooje ndombal tànk ministre li ma yore woon tax na mënu ma woon a dugg sax ci doxinu administration bu Prodac waxuma laak naan damay am benn responsabilité ci passation de marché yi Mame mbay Niang ne ñu bi coow li jógee ñu dugal ci sama tur li ma njëkk def moo di bind ab lettre démissionné tekki sama ndombal tànk ministre a seetal sama der mu man su may tuumal nit dama koy boole ko topp moom Ousmane Sonko ci viol bi ñu koy jiiñ diggam ak Adji bu ñu paree ci coow li sama digg ak moom man Mame Mbaye dinaa génne ay preuve yu wane ne li ñu koy waxal yépp moo ko def Mame Mbaye Niang tëj ay waxam ci yéenekaay bi ci ne ku ñu accusé viol li la war moo di génn réew mi boole ceeki tëj sa gémmiñ Vox Populi bind ci xëtam mu njëkk ne Mame Mbaye Niang dëkk na Ousmane Sonko nee na bés bu génnee rapportu IG bu may incriminé ci mbirum Prodac bu boobaa man Mame Mbaye Niang may jébbal sama bopp mu ne dugguleet Ousmane Sonko di sosal nit ñi ak di leen waxal lu amul waaye xam ne na siiru ndax du jàll ci xët mu njëkk Walf Quotidien fekkaat fa leneen coow borom boutique koñ yi mu di boutique yeeg détaillants yi bi mi ngi ñuy xamal ne nee dañuy amal gréew ñaari fan tëj seeni boutique ràpp duñu ubbi di ñu jaay njëg yu yees yi bi tëral bëgg leen ko forcé te mënuta nekk loolee la ñu naqarlu dogalub Macky Sall boobee jëm ci wàññi njëg yi Walf Quotidien mi ngi laaj ndax du laj ndax danañu dox ñu dox dem ci la Quotidien mi xëy di ñu xibaar ci xët mu njëkk di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ma ngir mu faj ci santé bi réew mi source waa nañu ak budget bu toll ci 242 milliards bu ñu ko nattal démb ci assemblée nationale ministre de la santé docteur Marie Khemesse Ngom leeral na ca kanamu député liggéey yu mag yi mu fas yéene ci santé bi ngir 2023 bokk na ca chantier yi gën a li ñu naan santé mère enfant yokk centre de dialyse yi am ci réew mi ubbi yeneen juróomi l'hôpital ci réew mi yi fi nekk ñu fexe nu mu fonctionné mu di hôpital bu Agnam bu Kaffrine bu Kédougou bu Sédhiou ak bu Touba doy lu doy waar Sud Quotidien nee nañu moo am ci assemblée nationale ubbil yéenekaay bi règlement intérieur bu assemblée nationale moom la ñu falsifié def ab faux règlement intérieur loolee yéenekaay bi nee nañu mi ngi am ginnaaw scandale di coow li fi amoon ñeel mbiri trafic faux billets ak mbiri trafic passeport diplomatique NSIA assurance Gambie